ma commencé combat bi la def déclaration wax ni bokkatuma ci benn parti politique bokkutuma ci benn mouvement politique àndatuma ak kenn ndax xeex bi dama bëggul ñu colorer ko politiquement ndax c'est la citoyenne Françoise Hélène Gaye la patriote pas la femme politique qui se bat ba may xeexal Ousmane Sonko du woon ni damaa bëgg a nekk ak moom wala di ko liggéeyal wala nekk militant dama jàppoon ni dañ ko tooñ ma xeexle ko jamono yooyu na ma ko xeexalee démb noonu lay xeexale Adji Raby Sarr tey ba mu bu nekkee ci dëgg moom ma xeexal ko tey moom mu nekkul ci dëgg moo tax ma jàkkarlook moom parce que ñun république la ñuy défendre précisément république kese lañuy ñuy défendre du ay nit looloo tax yenn saa yi nga gis ma ma ànd ak ñii nit bu ñu demee au pouvoir ma taxaw jàkkaarloog ñoom donc Ousmane Sonko tey bu doon moom moo nekk ci dëgg moom lay jàppale. ndax loolu day wane ne da nga bëgg a jege nguur déggoo ma ni la combat bi c'est apolitique maa ngi woon bokk parce que ki may jàppale mu ngi ci ngóor gi man maa wàccee lépp ne bàyyi naa àndatuma ak ñoom. le temps ma focus ma concentré sama bopp ci xeex bii nga xam ni bëgguma waxkat yi euh, méngale ko ak xeex boo xam ni état moo ko moo ko ngemb wala état moo ñu jox moyen wala état moo ñu xiir pour ñu jóg di ko xeex lii c'est une initiative citoyenne patriote indépendante amul benn relation ak état wala ak euh, autorité yi je fonction je fonctionne damay fonctionner ci principe bonne fois ba may jàppale Ousmane Sonko laajuma ko xaw ma woon ndax dëgg la waxam dégg te moom ba tey sax demul justice te mënoon na porter plainte ba muy accuser état dafa def ay accusation ma ànd ak moom parce que dama jàppoon ni moom moo nekk ci dëgg te aw ma woon preuve kenn laajuma woon ndax am nga preuve ni Ousmane Sonko lii muy wax dëgg la tey jii bonne fois boobu ma joxoon Ousmane ko moom laa jox Adji Raby Sarr jusqu'à preuve du contraire te damaa ne présumé violeur présumé laa wax ci sama discours parce que tant que justice parewul acte ko on restera sur la notion de violeur présomption d'innocence parce que man duma tooñ moom sénégalais la donc damay préserver moom itam ay àkkam ak ay yelleefam mais man ki nga xam ni laa yaakaar ni moo nekk ci dëgg moom la ñu tooñ moom la jaay doole man ci wetam lay taxaw looloo tax ma nekk ci wetu Adji